jukkil leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek ak benn vidéo boo xamante ni bii rek mi ngi wër di lëmbee réseaux sociaux yi mu di benn góor jigéen boo xamante ni bii rek dafa génn ngeen xam ne ne nekk góor jigéen a du gàcc ba tax rek ñi nga xamante ni bii rek ñoom ñoo di défendre ak ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal dañoo war a génn rek daal di soutenir ñi nga xamante ni bii rek ñoom ñoo di góor jigéen ñi ngir ñu mën a am seen liberté tax ne na Sénégal bu fekkee ne dafa bëgg développer dafa war a bàyyi li nga xamante ni rek moo di mbirum euh, góor jigéen ñu criminaliser ko fii ci réewum euh, Sénégal nee na nag mi ngi woo ñëpp ñu daal di génn rek daal di xeex la ñi nga xamante ne bii rek ñoom ñoo di góor jigéen yi ndaxte nee na ñoom yàlla suñu borom moo sàkk góor sàkk jigéen sàkk tamit euh, góor jigéen ba tax rek ki nga xamante ne bii daal nekk na góor jigéen taxul mu bon tayit nekk ko du gàcce ba tax nee na combat bi seen combat duñ ci bañ dara ñoom daal liñ bëgg rek mooy ñu am seen liberté yem ak ñëpp rek ñoo xamante ne ñu ngi fii ci Sénégal ndaxte nee na Sénégal bu fekkee dafa bëgg a développer il faut que rek mu daal di bàyyi euh, nga xamante ni bii rek ñoom la ñuy woowee borom ñaari tur yi ñu daal di légal daal di am seen liberté comme ni ko ñëpp rek amee euh, góor jigéen bii le rek moo ko daal di xamle ci ab vidéo boo xamante ni bii rek euh, fësal na ko ba jamono ji ñu ngi koy partagé bu baax a baax ci réseau sociaux yi ñu àddu ci leneen mbirum Baye du faal ñu gën koo xam rek ci booy jinne ginnaaw rek ba mu dawee rek ca bu Liberté 6 lu tolloo waaye jamono ji rek daal nañ koy teg loxo niki démb ah, ci alxames yi ca diwaanu Tambacounda ginnaaw rek bi gendarme yi defee seen investigation moom Boy jinnee ña ngi ko jàppee rek ca Missirah bokk rek ci département bu Tambacounda benn moto T-Max daal la ñu daal di gis rek muy sol li nga xamante ni bii rek ah, moo di gasoil ñoom nag ñu defoon nag seen investigation ba xam ne kii di Boy Djiné génn na ngir jëm rek yoon boobu de ndax moom dafa bëggoon rek génn dëkk bi waaye loolee rek mujjeewuta antu ndaxte nga xamante ni bi rek suñu police nationale am nañ ko ci noonee rek la ko gendarme yi daal di jàppee rek loxo ba daal nañ ko delloowaat ca fa nga xamante ni bii rek mooy ci loxo yoon moom Boy Djiné daal li nga xamante ni bëggoon na ko mu di daw génn dëkk bi loolee mujjee wuta antu ndax tegaat nañ ko loxo ndikk démb rek ci alxames ji ci fàttali rek ñeenti fan yoo xamante ni bii rek am na ko ci biti ginnaaw rek ba mu rëccee foofee ca Liberté 6 ñu àddu ci leneen mbir moo xamante ni rek démb ba tey internet yi ñu ngi koy partagé mu di mbirum Dieynaba Traoré ñoom nag daan nañ ko woowee li nga xamante ni bii rek moo di tene moom nag dañu ko daal di faat daal di koy sànni rek ca filaawo ya nekkee foofee rek ah, ca Tiwaawoon Pël ba léegi rek ñi def li ni mel xamaguñ ko waaye nag gën nañoo xuus rek ci ay mbiru Dieynaba Traoré ba xamal nañu ne rek moom soxna si Sile ab malienne la mi ngi am lu tolloo ko ñaar fukki at ak juróom dafa divorcé bu yàggul ba am am na sax benn doom boo xamante ni rek ñeenti at la am nga dëkkee ca diwaanu Parcelles Assainies unité 21 moom naka da daan faral di jaay li nga xamante ni bii rek moo di ay produits cosmétiques foofee ca marché Dior foofu la amoon kantinam buñ sukkandikoo rek ci l'observateur ak libération mi nga xamante ni bii ñoo ñu jukkil yooyu les xibaar ci soxna si lee di Dieynaba Traoré ba tey rek journal ba yemu ca kii di Dieynaba Traoré xamal nañu ne mosoon naa rek intégré benn groupe cinéma boo xamante ni bii rek teewal sa gox tudd ba jotoon na faa sax joué benn euh, film moom Dieynaba Traoré démb nag lañ ko trouver nag foofee ca euh, Tivaouane Peulh dañ koo jamat nag ba mu faatu waaye nag ñi def ñaawte fi ba léegi nag xamaguñ leen enquête ba ma ngay woyee nii lépp loo xamante ni rek fasaan na ci dañ leen ko talaatal digtalaatal euh, ci suñu yeneen ni jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen mbirum aji mi nga xamante ni bii rek dañu ko ràññee woon ci kooru biddéew moom nag aji ren ji rek ci kooru biddéew gisuñu ko benn yoon bu daat cay ah, feeñ buñ sukkandikoo rek ci benn interview boo xamante ni bii seqoon na ko ak suñuy naataango yu nekkee foofee ca univers info journaliste bi sax dafa insister bu baax a baax ngir laaj ko lan moo tax gisuñu ko ren ci kooru biddéew nee na dafa tëdd feebar lu toll ko ñaari weer waaye nag nee na sibiru rek moo ko daloon waaye nag kii di bi daf ko xamal ne ko dañ la jàppoon rek mystiquement ba sax jotoon naa jàpp say bët ci yoo xam ne am na ko ci moom waaye nag nanguwu caa àddu dafa ree rek waaye mu mel ne loolee rek dëgg la moom nag aji li tax gisuñu ko xamal nañu ne dafa tëdd feebaru tolloo ko ñaari weer ndax mystique laam déet nanguwu caa leerlu waaye nag nee na daal sibiru rek moo ko jàppoon te mi ngi sant rek bu baax a baax rek jamono ji te lu yàggul dara dinañ ko gisaa rek ci écran bi ndax moom théâtre da koo bëgg te moom la xam kon nag nañu ko séntuwaat bu baax a baax rek jamono ji ci suñuy ecran ndax moom loolu la xam ne nee na dina ñëwaat ci lu yàggul dara couple bi nga xamante ni bii rek jamono ji ñu ngi def buzz ci réseaux sociaux yi di kenn ko dul rek Bijou Ngoné ak boroom këram bi lee di Monsieur ndaw ginnaaw rek ci ab complicité boo xamante ni bii rek am na ci seen diggante ba benn vidéo boo xamante ni bii rek fësal nañ ko ci réseaux sociaux yi nga xam ne da ci boot rek kii di Monsieur ndaw mu mel ne rek internet yi réagir nañ ci bu baax a baax di ci fësal rek seen mbégte ginnaaw rek ci boobule ak complicité ñu leen di ñaanal rek mu daal di sax dàq beneen couple bi nga xamante ni bii rek ñu dund seen mbégte jamono ji nekkul benn rek bu dul couple a Wade uh, bii di Ndeye Soxna uh, Sonko ak Momo Wade bu Sen TV ginnaaw bi nga xamante ne bi rek ngente nañ uh, seen taaw bu góor boobule ñoom nag démb fësal nañ rek ab vidéo ci réseaux sociaux yi di gën a rek dëggal seen ko bëggante ak mbégte mi nga xamante ne bi rek am nañ ko ginnaaw seen doom ju góor joojee nga xamante ni rek moo ju juddu ndiki ay bés yi rek ñu génn ñu di ko ñaanal rek mu dund di ñaanal rek seen couple boobu rek gën a sax dàkk li rek moo fi gënoon fës amee internet yi di daje lay doon ba ëllëg ak jàmm.